mu melni ni mbay sall lim ñu jàngal wane nañu kon tay dañuy tambali kamil bi dooree ko ci fatihatul kitab gannaaw bi ñu yàlla mayee ci kartanam ak ci sañ-sañam juroom ñetti at yi passé yépp ñi tambali woon ci téré bi mu sotti tay nak kon ci bisu altine bi nga xam ne ci la alquran wàccoon ci weeru koor wi ci la alquran wàccoon dañ ci tàmbali waat ak yéen téere yàlla bi di alquran di téere boo xam ne moo gën ci téere yi yàlla wàccee ko ci yonantu bi gën ci yonantu yi yonantu booba indil ko xeet wi gën ci xeet yi wa wa timit, ki gën ca xeet wa mooy ki la gën a mën téere bi te dàq la koo jëfee rek ku la man ci téere bi ci ci man ko man la ki ci jëfee ko timit kooka moo lay gën ci wi moo tax bi daan wax ne asrafu ummati xamalatul quran sama tedd ngay nyegana wi ñi gën tedd ki sama xeet wi mooy ñu xenu téeréeb yàlla bi di ko jàng yenu téeréeb yàlla bi timit di ko jëfee téere bi xale bi doon ñu jàngal moom kenn moo fi des tey ci jeexitulu wax yu yàlla ci kaw suuf jeexitulu wax yu yàlla goo mën a làmb daj ko man koo déglu dégg ko man koo xool gis ko benn téere ci des muy alquran bu dul moom bu ne lu ca bokk dugg na ca lu ca bokk tamit génn na ca waaye téere bi li ci nekk lépp ci la bokk li ca bokkul lépp tamit génn na ko moom kenn dong moo ko am tey ci kaw suuf ci téeméeri téere ya ak ñeent ñi koy tënkee maanaam samadu téere bi mooy téere boo xam ne jamono mënut koo yàggee ba xewil ko buñ la laajee wax judul xewi neel alquran waaye wax ju mën a doon judul alquran li ko teree lu ko teree xewi rek mooy yàgg bu ko fi yàgg fekkee rek xewil ko moo tax kenn ku nekk si ñun boo fi nekkee di wax sa waxi maam ñu ne bàyyil wax jooja xewi na bu yàgg waxi maam ya la woon bàyyil sa waxi bàyye kooka xewi na te loolu boo ko doon seet mille neuf cent ñii mille huit cent mille sept cent waaye kon wax joo xam ne lu mat fukki seekal ak ñeent fekk na ko fi te day tey la gën a xew ci jamono ju ne tey la gën a xew ci place bu ne waxatuma xewam waaye kum xas xewil sax du kum xas xewal dootoo sàppeeti alquran kum xewal ba péncam yàlla ma nga topp ko dootoo xeweeti koo dégg ñu ne dafa xewen dafa xewoon xewi na rek alquran moo ko xewalut koo déggoon dafa xewoon de bu yàgg waaye léegi xewi na yoon mu toppoon muy ba mu xewil ko ba mu xewal ko moom la wàcc moo tax tey mu mujj xewi kon ñaareel ñetteel ba téere la boo xam ne du sàppi lu mën a doon soo ko yàggee déglu ci say nopp mu sàppi la soo ko yàggee wax ci sa làmmeñ mu sàppi ak lu wax ja foor foor waaye alquran dong mooy wax ju dul sàppi ci nopp mooy wax ju dul sàppi ci làmmeñ looloo waral borom télévision yi di bañ émission yi ñuy rediffusé boo fi defee émission lu mu baax baax ci wàllu jamono buñ ko rediffusé rek gaa yi ne ah lii xew passé na bu yàgg lii xewi na sàppi na naka noonu ñu nekk ci site internet yi dañuy bëgg toujours ñuy dugal lu bees saa yoo mënta dugalati lu bees rek yow bokkatoo ci rajo ci télé ci warsab yeeg yi ci aju waaye alquran xool ko kañ la nekkoon ci ak télévision yi kañ la nekkoon ci rajo yi kañ la nekk ci warsab yi heure bu nekk ñi ngi koy manipuler di ko jàng te taxut mu sàppi mukk ca ña koy déglu ak ña koy wax kon mooy téere bu dul sappi moom kenn mooy téere bu dul xewi moom kenn rek tamit moo ndar kepp xam-xami way njëkk ña ak xam-xami way mujj ña ku bëgg a xam-xam-xame way njëkk la ko doree ca sayduna aadama ba ci kii mujj a nekk ci kaw suuf ba bu ñu ba ba ñuy dekki ëllëg ba nit ñay jël seen loosement ñi jëm aljaana ñi dem safaraak pencam yàlla maag la ca xew lépp benn téere dong moo koy jàngale boo ko bëggee xam muy alquran ndax yonent bi daan wax ne man araada ilmal awwalina wal axirin fal yusiril quran ci moom kenn dong koy fekk doo ko fekk tamit maanaam ci beneen téere muy téere amul kenn ku ko mën a càmbar ne ci fànn gii rek lay wax téere boo waxati boo ko yëkkatee dañ lay wax ne waaw téere bi yow nga téye ci lu muy wax ci luñ ko taalif mu ne la man téere bi luxa laa yore kon lépp luy luxa ma nga ca waaye lu dul luxa bokkut ca wala nga yëkkate ko téere boo yore mu ne naxu lépp lu jublu ci wàllu grammaire ma nga ca mais lu dul grammaire nekkut ca wala yow sa téere bi lan la nga ne fiq luy fiq ma nga ca lu dul fiq bokkut ca yow nga ne sa téere bi lan nga ne taarix téré tarikh la yoré kon lépp lu jëm tarikh ci walu tarikh ma nga ca mais lu dul taarix ca alquran nak mëno wax né téeréb li la téeréb lépp la so bëggé xam naxu mi ngi ci ba wa naxu yépp sen xam-xamu naxu ya muy nuhad ya sen xam-xamu naxu ñu ngi ko tibé ci alquran mu dess fa rek di mom mbolém ñu sen xam-xam wacc macc ci walu lugha sen téré yépp ñi ngi ñi ngi tibé euh, sen lugha ya sen baat yooya ci alquran mu dess timit nek lam nekkon naka non timit ñi bëgg sirah ci wàllu histoire ñu ngi tibbee seen wàllu histoire lépp ci alquran mu des tamit di moom ñi seen xam-xam wàll màcc jëm ci wàllu médecine ñi nekk ay médecin lépp ñu ngi ko tibbee ci alquran mu des tamit di téeréeb loola naka noonu tamit ñi seen xam-xam màcc ci wàllu taarix ci alquran rek nga ko mën a fekk mu leeral ko kon duhul téeréeb taarix waaye ci moom lay taarix di leeree bu taxutoo nag alquran taarixu suñ maam aadama du leer ba péncam yàlla ñaari doomam ya Qaabil ak Haabil li ko doon du leer ba pencam yàlla Siisa li ko mbiram du leer ak Idrisa Noox ashaabul kahfi ashaabu saba'i Dul Qarnayni ñooñu ñëpp seen histoire alquran na ñëw leeral ko te taxut mu nekk téereb histoire kon mooy téere bi bi nga xam ne fànn yëpp ñëw nañ tëbb ci moom téerewut mu nekk lam nekk mooy première séebu bi nga xam ne moo taxal séebu yëpp mooy première jum boo xam ne jum boo gisati mu takk ak ci fànn gu mën a doon boo toppee tànk yi rek fekk ci alquran kon moom kenn moo am loola waaye mooy téere boo xam ne moo mën a dañal nit tuuma alquran ni mu arrangé ñun ñii di ko jàng ci suñu jamono ñi ni la arrangé ñi nga xam ne sax fekki wu ñu woon jamonoy alquran alquran ñëw na sax arrangé leen mooy téere boo xam ne ku mu xas setal ci tuuma kenn mënatul laa taqalati waaye téere la boo xam ne ku mu xas taqal ba tuumaal la kenn mënatul laa setalati xoolal alquran ni mu arrasé yonent yàlla yusufa mi ñu yàqoon deram ba jarul dara ci aw nitam ñu ñëw gannaawam di yàq deram ci lu ëpp fukki seekal ak nangam alquran na ñëw setal ko ne ala na xasasal xaq ana raawatu an nafsi bu taxutoon ak loola ba yowmal qiyaam du set ci wa shahida shahidun min ahliha alquran tamit moo ñëw setal naa maryama bi àdduna sosoo ba léegi musuñoo xam jigéen gu am doom amuloo jëkkër ñi laaj la nga ne jëlee wuma ko ci euh, ci ci mooy kooku xel mënu koo dégg mosta am doom moom ci ñaar rek la mën a mën a jaar benn nga amee ko ci sëy te loolu la yàlla bëgg mbaa nga yàkkamti jëlee ko ci lu doonul sëy moom mu xëy indil doomam indil mbokkam ya doom ju tedd ju sell joo xamee ne ni amul baay jëleewul ko ci jëkkër jëleewul ko tamit ci ak mooy nit ña doomam doom nitam ña yéemu ne ko yaa uxta na ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية لجي نك لو فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا مسترن كو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت كون بو القرآن أموتون باي بنتم يالا ما سيدتنا مريم دوسا كين مونو دارا بو القرآن أموتون فيكوت في يونتو يالا موسى مي با بنتم يالا موسى دوسا tuumaal nañ ko Qaaruuna moom monte genn jigéen jox ko alal ndaw sa ëmb mu ne ko fekkal Muusa fa muy waaraatee rek nga ne ko li nekk ci man yaa ko def ci man nga yàgg nga dégg ci ne nit ku baax yàgg nañ ko tuumaal ñu jël tamit jàllar bi ko sosal ko jàngoro joo xam ne xamul ko ci boppam yàlla mi ko bind xamul ko ci boppam yàlla ñëw setal ko de liñ koy waxal dara amu ca يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آثوا موسى فبرعه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها بو القرآن أموتون في موسى دي سته نينتل بي بو القرآن أموتون سخنا سيونن تبي سيدتنا عائشة فان لاي سته يقنن درمك بين غور بني تدي صفوان وقت وقت جبون يالا واتشي سورة النور فكي آية أكجروم نيات défendre ko ne da ngeen waroon wax ne ba ngeen déggé li ngeen njort ci mom njort gu wër la wax ne hadha ifkun mubin ñété wara wax ne manam buhtanun azim mu jeex kon nak lola tay liko mëna mën moy alquran ci fukki ak ñett ci suratul nur kon ñent ñi ñep yàq nañ seen der ci walu moy ñaar ña dañoo yàq seen der ne dañoo moy ak goor muy sayyidatuna maryama ak sayyidatuna aisha ñaar ñañu yàq seen der ne dañoo mooy ak jigéen muy sayduna Muusa ak sayduna Yuusufa ñoom ñoom ñëpp alquran ñëw setal leen ba péncam yàlla kenn mëntu leen a taqalati waaye alquran mii kum kas taqal kenn mëntu laa setalati moo ñëw taqal ku taq ku ñuy tuddee wala dum mu xiira moo fekk yonentu bi toog mu xas ko wax ci moom lu bon yàlla wàccee ci moom fukki xaste ci alquran ne ko delloo ko ko bokk na ne ko wala tutia كل حلاف مهين هماز مشاء بالنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم بعد ذلك ذنيم mu ne ko bul topp yow yonantu bi koo xam ne fu mu mën a nekk day gëñ gëñkat la te la muy gëñ lépp day kàcc muy benn mu ne ko bul topp koo xam ne ay détail la ku xeebu la soo bëggee nekk homme d'état doo toppatoo ay détail ko ku bëgg a nekk kilifa rek yëfi détail du ca dugg waaye nag mu ne ko kii mahiin la ko xeebu la yëfi détail rek lay toppatoo yu kenn xamul diw nee na diw nee na tey nangam a xew xanaa dégluwoo nangam ku bëgg la xew lépp nga koy nettali yow duñu am luñ nettali ci yow mu ne ko mahiinin xalaafin mahiinin mu ne ko beneen macha in bi namim koo xam ne fu mu toll day dox di rambaaje nit ñi moom daal lii métti boppam bi ak di tàng xolam bi mooy ñaar ñu juboo bu ay mbokk juboo dana dox ba teqale leen bu ay xarit juboo dana dox ba teqale leen te loolu moo bëri suñ pénc bi masaa in bi na mu ne ko koo xam ne dafa xeebu ba ku ko romb mu jëw la jëwkat la hammaasin waaye boo ko toppee tamit ku ñaaw jikko la xottilin boo ko see tamit asiim ku bari bàkkaar la boo ko see din ku mën a tooñ la waaye tamit baxda zalika gannaaw juróom-ñeenti jikko yooyu yëpp zanimun kuñ sokk la ci baayam mais baayam juru ko mu gàddu jaasi ja ñëw ci yaayam ne ko yàllaay yonantu bi xas na ma ci téeréem bi fukki jikko yu bon juróom-ñeent yëpp d'accord naa ko reconnaître naa ko ne sama jikko la waaye bu mujj ba rek laa xamul nee na man baxda zalika zanim yaayam ne ko lu leer nga bëgg a dégg tey ma leeralal la ko sa baay mu xiiratu xinniin la tuuña la mënutoon a booloo te buur la war na fee bàyyi alal ju jeex ma bañ loola rëcc ñu ma jàppandal sama bopp ca sàmmam ba muy surga ba ci loola nga juddoo ñu lay askanee sa baay mais sa baay jur la loola bu xastewutoon ko dana ko dégg moo tax kuy xas boo bañee dégg képp ak maam bàyyi fi mag ñi mag ñi fekke woon ba ñuy xenu ba ak ba ñuy raame bu la ñaaw jikko toxee ba nga songu leen dañ la wax loo xam ne mosoo koo dégg da ngay xaru ji keroog ba mu déggee loola ba ba yowmal xiyaam xasatul kenn kon kii dafa taqoon alxuraan ñëw taqal ko ku ko mën a setalati ba pencam yàlla dootul setati waaye alquran moo ñëwoon fekk tamit Aasi ibnu Waayil taq li ngay tuddee chamatatul aada ndokk say noon jàpp ko yonentu bi am taaw xaasim mu génn àdduna ci ak ndawam mu ne yéen ñuy noonoo yonentu bi bu ngeen yeboo fegal kii benn doom la amoon génn na bu dee rek mbiram fay am na ñuy wax loolu ci nit kii kay liggéeyam bi du dem fenn buy dee rek mu fay ndax ni mu ko mënee taxawee ku ko mën a taxawee amut fi yàlla ne da ngeen a xamut nit bu yaroo baax ku ku ku mat a jur rek doomam lay doon donte juru ko ku ko mën a jur ku ne baayam lay doon mbaa yaayam penc mi nag ku ci bari le baay bari le fi yaay bëri le fi ay doom fooy tumuranke moo tax mu ne ko xanaa xamoo kii ngay ndokk mooy mooy mooy koo xam ne innaa ataynaaka al kawsar wëli yu yëpp ay doomam lañ borom xam-xam yëpp ay doomam lañ mujaahiduuna yëpp ay doomam lañ jànkati alquran yëpp ay doomam lañ ñii dund sunna yëpp ay doomam lañ yonentu ya ko jiitu woon sax jàpp na ñooy baayam moom mooy seen baay ay doomam lañ ibnu farid waliyu yàlla bu mag boo waxee ci làmmiñ yonentu bi ne wa inni wa in kuntu ibnu aadama suratan fa lii maanan shahidun bi ubuwati kon kam doon ndokk des na fi njabootam des fi liggéeyam des fi ñu koy fesal ba pencam yàlla Aasi nu Waayil kenn mun laa wax sëtam léppam dagg na moo tax yàlla na ko inna sha'niyaka huwal abtar da koo bañ ba xasru ko ki la bañ dong mooy koo xamee dafa njàddi dana jur lu ne léng waaye kenn du ko xam du dem fenn kon bëri na koy ndokk sa noon nga ngeejuhu ci moom ak torox te fekk yaay torox yàlla gën di ko héega yow gën di la héesi mulai lay romb ak auto boo xam ne amoo njëgg sa xol bi tàng rek romb laag yére yoo mënta am sa njëgg sa xol ba di tàng rek romb laag kër gu baax goo xam yow mënoo koo am sa xol gën di tàng rek boo amul sans sax nga jëlee ci lu ñuy tuddee cancer dee dem safara yàlla yàlla musal mu ci ba tey kooka kon dafa taxoon yàlla ñëw taxal ko ki ci des mooy ñoom ñaar góor lañu jigéen yàlla bool leen ci aw saar abi lahab dafa taq ba pare ñëw di taxal yonantu bi yàlla ne ko ki ngay takal takku dara ndax mo ne kon taban lak ali jama'atna jamaatana al yawmi yàlla ne ko dire tabat tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu ma wa ma kasab yow yaay ki tak tay sar woowa wa woowa ñu jing ko jang ba yalla ak soxnam sa umu jamil wa mraatuhu ni jàng xamaalatal xatab ni jàng xamaalatul hatab kon lola ba tay kon ñent ñi set nañu dañ leena takalon alquran ñew setal leen ba péncam yalla duñ takati ñeent ñi dañoo taq doon jéem a taqal ku taqul alquran ñëw taqal leen ba péncam yàlla duñ setati kon téere bi ci lay nit di sete téere bi ci lay nit di taqee kum setal dootoo taqati kum taqal dootoo setati ba péncam yàlla téere bii tamit ci la yàlla di yëkkatee ku ci yàlla xas yëkkati dootoo daanooti fekk yaa ngi koy topp di ko toppatoo ku ci yàlla daane dootoo yëkkati kooti Omar ibnu Xataab moo ko wax dafa dajeeg benn gouverneur am bi nekkoon màkk ci am tukki ne ko yow maa ngi la nommé nga nekk gouverneur ca dëkk ba koo fa bàyyi mu ne ko maa ngi fa bàyyi ku ñu tuddee Abdourahman mu ne ko huwa minal mawali ki nga fa bàyyi ci mbaay yàlla yi la bokk kuñ moom la woon mu ne ko ah kuñ moom la waaye maa ngi lay waatal de bàyyiwuma ca dëkk ba ku ko gën a man tiireeb yàlla bi keroog ci la Omar wax ne inna allaha rafaa bil quran rijalan wa wadaa bil qur'aani rijaalan yàlla ci téere bii lay yëkkatee aw nit ci téere bii lay wàccee aw nit kon lu sa askan suufe suufe boo manee téere yàlla bi ci xam koog jëfee ko da mujj yëkkati ko ba yëkkatewaale sa askan wi bu sa askan timit kawee ci niñ koy waxee nga réere téere yàlla bi ci man koog jëfee ko danga nga daane sa bopp ba daane xaale sa askan wi nga bokk kon ko li ci man dara rek mooy téere yàlla bi moo tax nag su ma nee askan wu tuuti ak wu suu wu kawe amul ndax askan yëpp boo leen daqee ci aadama rek la ñuy dellu kullukum min aadam wa aadamu min turab waaye aadama miñ cosaanal askan yi yàlla jox ko deret gu sell deret gu sell joge da koo joxoon ay doomam doomam yooye nag af dafa am ci ñoo xam ne bañ koy jox seen doom ya dañ koo yàq yàq googa nag ci la askan wu suufee ñëwee ba pinc ba tey nii tey aadama am na ñaari doom doomam bi bokk na ci xaabil ak haabil mu jël deretam ju sell ja installé leen ko taawam bi muy xaabil kooka ba mu koy jox jeneen doomam ja di sëtam ba yàq na deret ja ndax da doon agressé ba rey nit kon nag xam nga kon boo nekkee doomi agresseur yàq nga sa deret kon moo tax liñ cay déggee kenn ku nekk ñun sa baay dafa laa abal deret ju sell amal fula nga sàmm deret jooje ba boo koy jox sa doom fekk yaa ngi ko jox ci sell gi la ko sa baay joxe woon waaye yàq sa deret ba pare door ko jox sa doom sa doom jox ko sëtam àdduna bu deret nag li koy yàq agressé ci la bokk naan sàngara ci la bokk sàcc ci la bokk ay kàcc ci la bokk rambaaj ci la bokk ji jëw nit ñi ci la bokk di karta ci la bokk jëfandikoo lépp lu yàlla xaraam nga nekk ca nuur ca ba xëy dee nga yëg nga ñàkk yëg sa deret yàqu na koo ko xabalate nga koy yàq ba par door ko koo jox loolu nag boo ca dundee koo jox sa deret gi da nga koy lor ta loola nag mooy li gën a bëri moo tax foofa la ñu naan askan wi dafa kaweek dafa suufe mais lépp a woon lu fi yàqu rek ci bi la yàqoo ndax kullukum min adam wa adamu min turab téere la boo xam ne tamit yonentu ba muy dem nee na ngi dem de waaye ñaar rek laa leen bàyyee ban ak ban mu ne téereeb yàlla bi ak sama sunna su ngeen leen toppee jàpp leen jëfandiku ci ñoom wallahi du ngeen réer sama gannaaw te yéen ñëpp da ngeen rot ci ëllëg ci sama déeba muy innaa ataynaaka al kawsar ngeen naan ca takku ca naan dootoo marati am na riwaay boo xam dafa ne maa ngi dem mais bàyyi naa leen ñaari waaraatekat benn ba day wax waaye du jëf benn ba day jëf waaye du wax bay wax te du jëf mooy alquran bii jëf ta du wax mooy dee am beneen riwaaya bu ne maa ngi dem bàyyi na leen ak ñaar benn bi mooy alquran benn bi mooy sama njaboot qul la asalukum alayhi ajran ila al mawaddata fil qurba kon yëpp bu ci nekk rek baax na buñ ci topp rek toppatoo ko rek dem aljana waaye téere ne bàyyiwul dara téré bo waxati nit talif ko nga ne ko abal ma ma lire soko xolé dang ci gis lu ca newut waye téré bo xam lepp ca ne ben téré ko am muy alquran bu waji talifon ci naxu nga ne ko ma xol boko xolé dana am ci buntu yo xam amul ci naxu motax gaay jang ajurum ñu ne a ah doyut nañ séti mulha. ñu jang mulha ne doyut nañ séti muqaddimatul kokki ñi jang ko ne doyut nañ séti ibnu malik ñi jang ko ne doyut nañ séti lixmiraar ibnu bun. ñu jàng ko ne doyut commencé seet nag yeneen téere yaak yi ci aju pour mën koo yokkee seen aliwa kon yooyu yëpp mataluñ nga ne kon naa jàng téere lu yi nga ne ah bàyyil ma seet du rëy du yaakaar naa baat yi ngi ci baat yëpp ngi ci nga xool ko ne doyut bàyyil ma seeti daaliya nga xool ko ne doyut bàyyil ma seeti maqaama nga xool ko ne doyut bàyyil ma seeti soxaraawu demeet waaye téere boo xam ne lépp a ngi ci loo bëgg rek mu ngi ci téere bi benn téere ko am muy maa farat naa fil kitab min shay'in kese tibyaanan li kulli shay'in bu ci nekk taxmimu ta maanaam tanwiinu taxmim la téere bi bàyyiwuma ca dara téere bi bàyyiwul dara benn waay ne waaw téere bi benn waay boo xam ne dafa nekkoon lakkkatam mburu yàlla ne téere bi de bàyyiwul dara mu ñëw ci mu fasir bi nekko ko yàlla wax ne bàyyiwul dara ci téere bi ma lay laaj waaw euh, benn saakoob fariñ ñaata mburu la mën a xóoyal mu ne ko alquran wax na ko fas alo ahla zikri demal ci boulangerie rek nga laaj leen ko boo fa demee léegi mu ne la nangami lay jël ci ndox nangam lay jël maanaam ci xorom nangam lay jël ci courant nangam tamit lay jël ci fari kon fas alu ahla fikri maçon ba tamit noona boo ñëwee naan alquran ne na bàyyiwul dara waaw saako ciment bi ñaata mool la mën a mool fas aloo ahla fikri boo demee ca moom la boo ko bëggee def doos bi pour mu am doole def ko 35 ñu ngi la def ko cinq su fekkee pele ngay mool ñi ñu la fekkee ci àll bala bu la neex nga def ko 50 dana am doole kon foofu fas alu ahla bayiwul dara naka noonu tamit kay togg demeet boo ñëwee ne ko waaw alquran ñu ne bayiwul dara sama ceebab dépense bi juróomi kilo laay dépensé oo ñaata litre yi dawlin moo koy sóor ñu ne demal ki toggkat ba fas aloo ahla fikri kon téere bi bayiwul dara ndeysaan moo taxoon génn góor gu mën a firi alquran yàlla na yàlla yokk leeram baa laa gisatu dafa mës a firi ci lycée technique ba firi ma jeex mu ne téere bi de yàlla wax ne bàyyiwul ci dara maa farat naa fil kitaab min shay xam nga étudiants yi ñu mën a laaj lañ benn étudiant ñëw ne ko waaw sëriñ bi yàlla wax ne bàyyiwul dara ci téere bi dama lay laaj ndax téere bi indi na sama tur sama tur nag dara la ndax sama bàyyi ma ko tuddee reen di xar oo oh, ilimaan noddal ma li xaamal ma sëriñ bi ne ko noo tudd mu ne ko kuuka mu ne ko yee yow alquran ina la ki saari suufiya wa tara kuuka kon téere bi bàyyiwul dara ku ko xas xam luñ la laajati nga gàcce rek da nga koo desee xam sëriñ Fallou defoon na ko benn waaye dafa ñëw ne ko ah sëriñ bi yéen de baax ngeen lool amee ay maqaama waaye da ngeen a xamut àdduna mu ne ko wax nga dëgg ñun dañoo xam àdduna moo tax sóoruwuñ ko ñi bàyyi leen ko mu leen ni sonal rek àdduna koo xam doo ko sóoru yéen ñi ko xamu na yéen a koy jéem sóoru moo tax ngeen sonn ñun ñu ko xam jéemuñ ko laal sax kon loola bàyyiwul dara alquran mi ku ko jàng gëm ko di ko jëfee bu yowmal qiyaamee moo lay ràmmu yonentu bee ko wax kenn ku nekk nag boo amee dossier da nga soxla avocat am na dossier yoo xam ne boo amul avocat doo ci génn ne la jëlal nangam fay ko 2 million jëlal nangam fay ko cin millions avocat yi bëri di la waxal rek yàlla nee na avocat bi mat avocat àllaaxira mooy alquran iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashaabi ku jàng alquran rek bu yawmal qiyaama day so robbu ñëw taxaw sa digganteeg sa borom ne yow yàlla ki sama client la dafa ma don nafila guddi dama bëgg nga bayima ma ko haljana, dafa ma don jang dama bëgg nga bayima ma dugal ko aljana dafa jëloon domam ya dugal ko ci daara ya ñuy jang dama bëgg nga bayima ma ma len haljana da daan jël alalam di def ci daara alquran yi kon ñi sama client lañ yalla ne ko ya ngoog ak sa client yi mayna lo bëgg rek nga am ko tey kon alquran baxna ku ko jang rek yalla lay defar lola motax timit boy dem aljana da ngay dugg ci daraja yi gëna kawé kawe aljana ay darajaat la safaanu safara la safara darakaat la fu gën a suufee gën a naqari darkul asfal nag mooy haawiya euh, moo ca gën a métti fa la munaafiqiina yi jëm innal munaafiqiina fi darakil asfali min an naar moo ca gën a bon moo tax mu naa naafiq baaxut moo gën a xës ki jikko yi danañ ci ñëw su ko defee ñoo ñooy jëm darakatu bi gën a suufee waaye aljana nag darajaat la fu gën a kawe gën a neex aljana darajatu bu ne ak moromam mi ngi toll ni diggante asamaan ak suuf étage bu ne ak moromam noonu la kawe nga xam ne kon étage ba kawe na xaw ma yan poto ko téye poto yàlla ya rek moo ko mën a téye diggante asamaan ak suuf boo bëggee xam jege bi ak sore bi doxab juróomi téeméeri at na soo doon dox nii waaxuwoo ba ëpp waaye tamit doxoo dox bu yéex da ngaa dox rek simple fii ba juróomi téeméeri at taxawoo ci ngay door a hegg ci asamaan su njëkk si. diggante asamaan su njëkk ak ñaareel ba doxab juróomi juróomi téeméeri at la ba tey alquran nag xarafam yi moo tolloog darajaatu aljana yi xarafi alquran yëpp millions yi xaraf la ak ñaar fukki junne ak juróom yow nag boo ko mokkalee di ko jëfee boo ëllëgee yaa ngay dëkk ci état million ak ñaar fukki junne juróom état bu ne diggante asamaan ak suuf ndax lu kawe moo tax yonent bi daan wax ne iqara warqa jàngal rek ndax nga yéeg waaye ma ne boo man boo mënta jàng loola yàlla dogal nga man ca mbaa nga man ko jël sa doom gedd ko yóbbu ko ca daara ja mu man ko su ëllëgee day xée la ndax ku ne xam na ne ku am doom ju mat doom mu am fii na kër ndakaaru wallahi boo ñëwee doo dem ci appartement ya soo ñëwee tamit doo fanaan biti da ngay woote ne diwlaa ñëw mu ne taxal ma yónnee la oto ba oto bi ñëw jël si la dugal la dugal la ci këram mu toppatoo la ba ba ngay ñibbee kon tamit àllaaxira noonu la mel bu ëllëgee dana xam ñoo xam ne yàlla da leen di yéega seen darajaay doom yi ñi ëllëgee am na ñoo xam ne dafa leen di yéega ci seen darajaay baay yi ñenn ñi seen darajaay sëriñ yi ñenn ñi darajaay yonantu bi demeet ba lépp jeex kon yàlla ku bëri yërmande la alxuraan mii tamit lu bëri tuur la turam yëpp yëpp boo ko calculé juróom fukki tuur la ak juróom cinquante cinq tur la alxuraan am tur wu ne tamit ci alxuraan la nekk turam ya bokk na ca shifaa u alxuraan na ko wax wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un maanaam tamit tur ya bokk na ca zikru maanaam wa innahu la zikrun laka wa li qawmika bokk na ca tur ya tamit nuur ku ne jàng na baatam nuur ci alqur'an bokk na ca turam ya alqur'an ak furqaan kooku moom moo bokk sax ci benn aaya shahru ramadan alladi unsila fihi alqur'an hudan linnaasi wa bayyinaatin min hudaa wa furqaan kon demeet nun nga koy toppee ca tur ya noonu nga koy toppee ca tur ya ba mat juróom fukki tur ak juróom loola boo ko defee addat lim lay jox mooy mujjibu kon li muy tekki kuy jàng alquran rek di ko sellal di ko jëfee xalaa kulli xaal da am ijaaba soxla bu la nit diis boo ko ñaanee yàlla rek mu fay mu maanaam mu faju moo tax suñ mag ñi amoon lijaaba mag ñu tedd ñu mel ni maam Alaaji Abdoulaye Niass lijaabaam yeggoon na ci buy kaf sax yàlla dëggal bu juumee sax yàlla jubal benn bis dafa toog rek benn janax di yàq téen bi muy kaf rek ne ko waaw janax ji doo dee janax ji dee ca saasa te da doon kaf rek kon mag ñi noonu lañ mel ci lijaaba Seydil Hajji Malik Xaadimu Rasul maam limaamu ak ñu mel ni ñoom dañoo jàng-jàng alquran ba mujj nekk jëmmi alquran gi nekk ci kaw suuf luñ dogu rek yàlla def ko buñ kafee yàlla dëggal buñ juumee yàlla jubal moo tax ñooña euh, del ñaan seen làmmeñe di wax yiw seen làmmeñe bu ñu waxee safaanab yiw tamit lañ wax la yàllay def maam xalifa def na ko ab dëkk teral ko ba seen teraanga jeex mu leen di juumal mu leen di ñaanal juum bëgg a wax ne dëkk bi yàlla na fi yàlla dàq beekoor faw juum ne yàlla na fi yàlla saxal beekoor faw kenn waxut amin ba muy ñetti yoon mi ne mu ne lu taxu leen amin mu ne ko ah li ngay ñaan sëñ bi kenn du wax amin yàlla ne dëkk bi yàlla na fi yàlla saxal bekoor faw mu ne ñaata yoon laa ko wax mu ne ñetti yoon mu ne sama ñetti faw yooyu faw mu am waaye ñooña ba ñuy teqalikoog bekkoor xaw nañoo dee moo leen mujj wax leen benn sarax bu ñu génnee ci lañ mujj jaaree kon mag ñi dañoo jàng alquran ba mujj nekk jëmi lijaaba bu ñuy kaf yàlla dëggal bu ñu juumee jubal kenn mënu ci dara kon alquran mu turam yangoog tur yooyu la am tolloog juróom fukki tur tabarakallahu ak euh, maanaam ak juróom nekk addadu mujibu téere bi nag boo ko jëlee moom alquran mii ñetti yoon la wàcc wàcc na bàyyeekoo ca yàlla te bàyyeekoo wut fa ñëw ci lawhul mahfuus bàyyeekoo ci lawhul mahfuus ñëw ci asamaan si tiim ñu benn néeg bu ñuy tuddee baytul isa door faa bàyyeekoo nag jaar ci jibril ñëw ci yonantu bi ñetti yoon yi la alquran wàcc ba mu wàccee ñetti yoon yi timit ñetti yoon lañ ko dajale yàllaa ku njëkk a dajale ca moom moo tax moo ko waxal boppam i inna alaynaa jam'uhu sëriñ bi wax na ko démb kon moo ko njëkk a dagale ñaareel bi tamit yonantu bi ñi wàccee ko ci moom diirab ñaar fukki at ñett ci kem ni ko yàlla programme ak xew-xew yi ak laaju mbindeef yi moo tax yasalu na ko bari ci alquran loola diirab ñaar fukki at ak ñett fukki at yaak ñett ca Makka fukki at yu mujjee ca Madina juróom ñett fukki saar ca Makka fanweeri saar ak ñeent euh, maanaam ca ca Madinatul Munawara nii la wàccee ba mu wàccee nii ci yonantu bi tamit yonantu bi avant muy génn adduna dagale na lépp bopp xisib yaag yëpp mu xamle ko ak saar ya aayaat yaag kenn ku ne fa muy war a nekk xaraf yaag yëpp ba mu leer lu tax nag dafa amoon juróom benn fukki secrétaire yoo xam ne ñoo koy bindal aaye bu wàcc rek mu xooleen ñoo ña bind juróom benn fukki secrétaire yooya noona ka ca gën a siiw mooy Seyduna Aboubacar Seyduna Omar Seyduna Ousmane Seyduna Aliyu Ibnu Mas'ud ibnu abbas ubay ibnu kaab a maanaam sayd ibnu saabit demeet ñooña ñoo ko doon dagaleel alquran jamaa alquran al muazama zaydun wa muazun ubayun niamal walaau wa abu ayuba tamimun wa usmanun lazi ashraqat bihi albathaau ثم منهم عبادة وابن مسعود ومن تنمى له الدرداء وعلي قيس وسالم أيضا وهو مولى سعيد فهم قراء ñi ñoo nekk ñoo xam ne juróom benn fukki nit lañ aaya yu wàcc rek ñu jàng ko moom ñu bind ko fa ko yonent bi wax ca place ba fañ koy war a placé waaye fukk yi ma la tuddal ñoo ca gënoon a siiw ca dagale ga yonent bi génn àdduna alquran nekk ci lu ñu dagale nii ci benn place waaye nag dagale gi lii mi ngi ci dënni góor ñi ñi mokkal ko lii mi ngi ko ñi ngi ko bind ci ay xànc lii ñu ngi ko bind ci ay yax lii ñu ngi ko bind ci ay der waaye nag toftale huñ ko nii ba ne nii la ba mën a nekk benn kaamil boo mën a yëkkati taxaw fee di jàng ba ba dagaloo na rek ci dëndi nit ñi dagaloo tamit ci mbind mi yonent bi génn àdduna ña dëkkoon yamaamata wax ne dootuñ génneeti asaka dañoo gis ne asaka impôt rek la ah Aboubacar takk xare ne day xeex ak ñoom Omar ne ko naka ngay xeexee ngi tudd baatu seede bi yemuñ ci ña ngay julli julli juróom ya Omar ne Aboubacar ne ko li fi yonent bi indi ku ci bëgg a wàññi lu tol ni jatankaab fas ma xeex ak yow law manauni iqala ba'irin kaanu yu'addunahu ila rasulillah sallam la qataltuhum kon kilifa bu sa bàyyi demee bàyyee laak dara da ngay fexe yokk waay bu ko wàññi yonentoo dem bàyyi ak aboubacar liggéey bi mun du ma bàyyi dara wàññeeku ci su xeboo tabaarakallaahu ñi faat sama bakkan waaye dara du ci wàññeeku mu jug takk ndigam ne day dem pour xeex ak ñoom Omar ne man sib naa xeex bi te njëlbeen ga waaye ba ñu xeexee ba pare d'accord naa ci xeex bi ci biir xeex booba nag kàng yu bari loo ëpp juróom benn fukki kàng dee ci xare ba Omar ibnu Xataab ñëw ci Aboubacar ne ko alxuraan mii suñ ko bàyyee mu nekk ci dënni góor ñi dagelewuñ ko bu fi góor ñi ko mokkaloon nekkatul rek alquran dana raaf te su boobaa ñu mujj ña duñ am repère bu ñu mën a taxaw Aboubacar ne ko naka laay defee lu yonantu bi defutoon dagale ko nii ba mu nekk benn kaamil nga mën a yëkkati ko dee yóbbu yonantu bàyyi na ko fi rek mu nek luñ dagale ci dënn nit ñi dagale ko timit ci am bind way dagale huñ ko bam nek ben kamil kaamil boo yëkëti dem mu ne ko ah yonentu deful ko won way lu bax la motax duma def la yonentu defon aboubacar moo ko njëkk wax waye nak le leg ni ne ah kon lu fi yonentu bi defatu ko ko def rek bu nga biddaa loolu kon biddaa day bari bo hepp di faaw nga xàmmee biddaahu def leneen ak defé neneen sharia biddaa bi mu bañ moy def leneen lu amul ben sukkandiku way ci sharia amul ko ci sunna mëno ko andi ci alquran kooka moom la yonentu bi ne man ahdasa fi amrina haza maa lay sa laysa minhu fa huwa raddun suñ mbir mii ku ci andi lu ca bokkul rek ñu delloo la ko ma foom mañ cay déggee ne mu xaalafa ma mooy kon ku ca andi lu ca bokk nag kon kenn du la ko delloo loolu lañ déggee ci hadis bi ku ca andi lu ca bokk ñi bàyyi ko ca Omar ne ko yonentu defut ko woon de mais lu baax la te yàlla ne nañ def lu baax ci la Aboubacar taxaw formé benn commission Ubay ibnu Xalaf moo leen jiite Ubay ibnu Kaab moo leen jiite ak maanaam Sayd ibnu Saabit mu ne leen bind leen alquran aaya bu ne euh, ngeen bind ko fa mu war a nekk ak hadis ba waaye aaye bu ne bala ngeen koo bind na ko ñaari nit seede ne kat nii lañ ko mokkalee ci yonantu bi te yonantu bi te bañ ko mokkalee ci moom moo wax ne fii lañ koy war a dugal ci xisi bu nangam ci baqara ci ala imran ci demeet maida ne ko ñaar seede bi ko ñaar seede bu bu leen ko bind ñi jël di bind di bind di bind ba lépp pare lépp dajee benn aaya réer leen ma mooy laqad jaakum rasulun min anfusikum moom lañ mujj a bañ ko gisee ñi fekk ko ci abi xusaymata moom kenn dong moo ko yore te moom kenn tamit moom mokkal ne fii lañ koy war a def ci mujj ak taw ba mu ne fii lañ koy war a def ñi wax mu ne fii laa fii laa dégg yonent bi ne fii lañ ko war a def mu ne nañ seeti beneen seede bu ko seede ñi seeti seede ba sonn mënuñ koo am aboubacar ne bind ko moom mii ben cdm bi dañ koy jappé muy ñaari cd ma mos a fekk yonentu bi am ko jaay kum jaay ak gëléem kooka mim ko ne ko fayut ko ciow la bari abi xusaymata ne ko mako fekke bang koy fay yonentu bi ne ko jappé na sa cd muy ñaari cd mu deugal la abubakar waxon ni jël maanaam laqad jaakum dugal ko fam waxon léegi bo moy dagalem ñaarel bi ci xilaafa ak sayduna abibakar abibakar gi ba muy dem bay génn aduna baye manam kamil ba sayyiduna umar Omar ba muy dem bay génn bay génn àdduna bàyyee kaamil ba doomam sayyidatuna Xafsatu mi soxnaa sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag Xusayfatum nu Yamaani mi nga xam ne moo gardé woon secret yonantu bi moom rek la yonantu bi mosa woo ba mu ñëw mu ne ko kaay ma déey la mbooleem ñuy naafiq ci dëkk bi dëkk bi li fiy naafiq tey ma wax la ko diw ci la bokk diw ci la bokk rappelé ko liste bi yëpp waaye moom dund na ba génn àdduna mos ta signalé loola kon booy dénk secret dénk ko ko am secret waaye am na ñoo xam ne boo leen dékkee secret ci kër gi kër gi tas boo leen dékkee secret ci parti bi parti bi tas boo leen dékkee boo leen dékkee eh, sa secret ci ministère bi ministère bi tas boo leen ko dénkee ci pale bi pale bi tas ndax ku ne loo ku ne loo xam lu ne li nga xam lépp boo ko waxee àdduna bi tukki waaye li ko yonantu bi jox lépp musu koo wax xomara mosa toog ba mu ñëw rek mu ne ko kaay ma gis la mu ne ko mbaa jàmm mu ne ko waaw ñi wéet ñom ñaar mu ne ko liste bi la yonentu bi jox dugal ci nafiqi mba mbaa bokkuma ci yonentu bi xusayfatu ah, ne ko ya baax xam nga ne xomar bokko ci de kon liñ cey déggé timit lo baax baax fek ya ngi nangu ne baax nga rek ku bon nga waye bala nga baax moy baax ba paré ta nangu ne ya gëna bon ci nit ñi kon gis nga xomar li muy baax baax baaxam nga hóoluwut ko japp na ne ma ci liste nafiqi ya kon lolu lu jara baye xel la waye ya baax ñi lay tag rek ngay mbaxana ñi lay tagg rek nga naan dolli lii da ngaa fàtte nangam ak nangam léeg nga bind not jox waa ji yaa gën a xées ki nit ñi liñ lay taggee ki lay tagg dafa am lu mu xamut ci yow rek de kuy taggee ku nekk tagg kenn ko mën a def ki nit ki mooy yàlla moo mën a seede moo mën a tagge lu tax foo dugg mu dugg fa foo nekk mu gis la loo def mu gis ko li nga fa sa xol bi sax xab nga ko maa yakunu min najwa salaasatin illa huwa rabiuhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum motax mu ne kon wakafa billahi shahidan man dong maa doy ci sédé waaye ko xamné yow yang koy sédé nga lay sédé nga ne am wax na lo déggul jëf na lo gisul fo koy sédé kenn gënul la ñëmé yalla yow nak ñi lay ngay xogali ko rek di réyal dara xamoo li xew kon li la umar ibn khattab wax xusayfatu ñew xusayfatu mom nak moko sayyiduna usman ne ko ajam yi ñi dul arab duggu nañ ci diine gi te dañ ci bëri sakkan tan ni ñuy jàngee alquran dafa bëri ixtilaafaat wuute yi bëri na ci damaa bëgg nga former benn commission ñu liggéeyal alquran dagale ko ba mu nekk benn kaamil boo xamee ne ni ñëpp moom la ñuy jàngee mu jël ku ñuy tuddee Zeydu moo daq daq saxaba yi ci la bokk ubay ñoom ñoo ngi ñu bokk ca former benn commission Omar Ousmane Ousmane jiite leen ñu ne dagale leen kaamilab yàlla bi ñu dagale ba mat. Osman mul ko juróom benni kaamil booba àdduna bi yeb juróom benni kamil mo ci dess yesi dessé mu lak ko da koo ci la borom xam-xam yi jëlee ne bo gisé alquran muy sanku di naaw wala mu dam wala mu nek lo xam ne dafa nek lu mokk wala mu nek ay keuyit comme ni mu amee ci daara yi rek lay cosaan bu ko gën moy nga lak ko waye daga na timi nga gas bam mu nga sul ko so woré na fofa sobé du ko fa fek waye xam nga bo sulé sul nga rek mais xamoo li ci xew waye bo laké rek mom jeexna na sa xel dal na moo lak moy ciosan mom la Seydina manam Ousmane defon lak lépp bam jeex bam nek do mu dess juróom-benni kamil rek aduna bi yeb juroom juróom-benni kamil mo fi dess mu jël ben ba yónnee ko makkah jël ben ba yónnee ko kufa ben ba Dimishqa ben ba Basra non la ko jëlé yóbbu ko mu dess manam bam dess des juróomi kaamil mu tassare ko mu des benn kaamil moom mu dess ko ci mudatul munawara ni moy juróom-benni kamil yi fi dess kon yàlla ko njëkk a ci inna alayna jam'ahu yonentou bi dagale na ko tamit ci dundam ci dënni gor ñi li ñi bindu ko way nekkut kamilam ñu mu boy meuna yëkëti ne ma nga fële way mokalé nañ dagale ga ci mom waye tamit aboubacar dagale na ko ci dundam ci xilaatat sayyiduna omar waye ñettel ba tamit dagale nañ ko ci xilaafa sayyiduna usman ci xilaatab ki joxe xilaat bi moy xusayfatu ibn yamaan mo joxe xilaat bi ñu dagale alquran bu nekk lam nekk tay alquran momu nak bokoy set juróom benn fukki xisib la ñëpp ci dëppoo alquran moomu téeméeri saar la ak fukki saar ak ñeent loolu tamit ñëpp ci dëppoo ñenn ngeen ne fukki saar ak ñett fekkee baraatu boole woo ko ca alquran moomu boo ko jëlee tamit nisifam yi mi ngi nekk maanaam cent vingt nisif la nekk ah benn bu ne boo ko xaajee ñaari xaaj loolu lay jox soixante kay boo ko xaajee boo ko def boo ko multiplier daf lay jox maanaam cent boo jëlee maanaam ruboxi alquran yëpp da lay jox maanaam deux cent quarante. nga jël sumunam yëpp mu jox la quatre cent quatre-vingts lii la alquran wax naa la ko timit ba nga jëlee ba nga jëlee xaraf ya wax naa la ko million yi xaraf la ak ñaar fukki junne yi xaraf ak maanaam juróom boo jëlee kalimaat yi muy baat yi nekk ci alquran juróom ñaar fukki junne yi baat la ak juróom ñaar fukk ak maanaam ñeen fukk juróom moom la alquran ëmb maanaam ci ay baat kon nag alquran moomu nag wax naa la ni mu wàccee bu daan wàcc ci yonantu bi wax yu gi ay maratib la xilaas bu seydil haji malik mi ngi koy nettali am na ci yoo xam ne buy ñëw day mel ni dañoo tafli sa ca xolam ba mu nekk sa nuquli ko falaatan sa day yëg ne am na def sama xol bi rek ndekee wax yu gala te du ko fàtte am na ci yoo xamee ne day dégg kàddu ga te du gis jëmm ja am na ci yoo xam day gis jëmm ja ak kàddu ga yëpp lay dégg day gis jëmm gi dégg kàddu ga am na ci yoo xam ne nag day mel ni ay weñ yu ñuy dóorante moo ci gën a métti daf wax yu gën a dafa diis ba nga xam ne bu ko fekkoon ci sedd bu wax yu bay ñëw yonent bi dafay ñàkk tooy xet bu ko fekkoon ci gëléem da nga gis gëléem nga di lox di lox ba mu gën a rëpp ci kaw suuf moo tax li yàlla ne sa nuquri uka fala tansa ak li yàlla ne inna sa nulqi alayka qawlan saqilan loolu lépp loolu lay dëggal kon wax ju diis a diis la wax ju foor la yàlla wàccee ko ci moom ca noona ba mu koy wàccee nag li njëkk a wàcc borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci mooy suratul alaq noonu la koy toppee muzammil noonu la koy toppee mu mudassir noonu ba juróom ñetti fukki saar wàcc noona ci madinatul munawara ba ca mujj ba ca makkatal mukarama ba ca mujj wàcc ca makka ñene suratul mu'minun ñene suratul ankabut waaye juróom ñetti fukki saar daal moo wàcc makka moom ba ca ba ca njëkk a alaq la ba ca mujj dañ ne ankabut ba ca mujj ñene suratul mu'minuna fanweer ak ñeent wàcc ca madinatul mu ca maanaam madinatul munawara bi ci njëkk ñëpp ci dëppoo mooy suratul baqara ba ca mujj mooy taw ba nii la alquran wàccee ci toftale ba wàccee nag léegi nag am nañu jàpp ne li njëkk a wàcc ci alquran mooy suratul fatiha ndax moo ubbi téere bi fatiha moomu nañu jàpp ne moo njëkk a wàcc moom nag la ñuy war a dugg ci firi mi waaye maa ngi seet technicien bi léegi mu ngi may signal li ñu mayoon ci waxtu wi jeex na bu ñu fi dellusiwaatee ci kartanal yàlla nag dañuy wax fatiha ak lim ëmb ci ay njariñ danaa la wax fatiha ñaata xaraf la danaa la wax fatiha ñaata ñaata aaya la danaa la wax fatiha ñaata baat la danaa la wax fatiha tamit euh, euh, juróom-ñaari aaya yooye lu mu lu mu ëmbee alquran ba tax na moom kenn boo ko jàngee jàng alquran mu mel ni alquran lépp dañ koo côté ci fatiha danaa la indil code bu ne ak aaya bu ne ci fatiha ban aaya la dëppoog ci alquran waaye loolu suba ci waxtu wi doon incha allahu in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqi ila billah